bon Makhtar Gueye laa tudd euh, maa ngi représentant Layla Travel fii ci final bi nga xamante ne si ñu ngi jógee ba Dakar ñëw fi ngir yàlla ak jàppalante ci ak ASC Bëgg Jàmm. lu tax ngeen choisir ñu jàppale bi waaw xëy na loo gis rek dafa am lu ko waral Layla Travel ci liggéey bu wóor bi muy def ak liggéey bu sûr bi muy def dafa am benn client boo xamante ne si fii la dëkk ci dëkk bi. bu Layla Travel toppatool billet actuellement nii may wax ak yow mi ngi États-Unis d'Amérique mu dem ba àgg foofu noonu relation yooyu ñu am ak Layla Travel ak ki nga xamante ni si moo dëkkoon fii jëq teraanga ba Layla Travel yóbbu ko ba mu àgg mu ne pour pourquoi pas Layla Travel jàppale gi muy jàppale jeunesse quoi du ko def ci gox bi mu dëkk moom mu tax ci ay jéego jéego yooyu mu ci dox nag moo waral sunu teewaay tey fii moo tax waa Layla Travel ci travers mbokk moomu ñu ñëw fii ngir jàppale jeunesse bi nga xamante ni si noonu la ko Layla Travel di defee loolu mooy sunu teewaay fii ñu sam la pour yeneen entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci loolu la ngeen ci tudd effectivement bon xëy na képp koo gis rek moo xam entreprise wala lu mu mënti doon day am but xëy na Layla Travel nag dafa jug pour jàppale jeunesse bi commencé ci ñi nga xamante ne si peut-être ci lay yëngut mënul may lu mu amul ci voyage lay yëngatu ci nangam ak nangam lay yëngatu mais ci loolu nag jàppale ci ndaw ñi yaakaar naa lii acte la ci te mu nekk agence de voyage boo xamante ne si sur na wóor na mi ngi nekk à Dakar moo di jàppale ndaw ñi ci wàllu voyage fu ñu mënti dem ci biir réew mi woo xam biti réew la fa foo mën a dem wala nga am soxla ci àdduna bi wërngal këpp boo ci jokkee ak ñun euh, yaakaar naa sa soxla dina ci faj bon grosso modo loolu moom mooy objectif bi ñu jug nag pour ñëw ci finance bi nga xamante ne si moo dox ci diggante AIC jamono ak ASC Wagdil ñu ñëw sponsorisé ko ba pare nag ñëw fekk fi lu dal suñu xel ci accueil bu rafet bi moo gis fi ndaw ñi ñëpp jóg parce que tam gis nañu réew mi ni mu demee ñuy tàllal suñu loxo ndaw ñi nga xam ne fekk nañu leen fi bépp soxla bu ñu am wala ñu bëgg ko ci voyage rek Layla Travel incha allah dina ci taxaw ci seen soxla def ko comme ni nga xamante ne si moom moo waral tey ñu ñëw fi muy mbokk moom nekk États-Unis ñu ngi koy nuyoo passage di alaaji merci beaucoup. voyage yi yaa ko wax gis nañ ndaw ñu jamono ji gaal gi la ëpp li ñuy jël problème phénomène bu récurrent la tey que jàpp leen ni yéen ñi exemple ngeen mais aussi ñëpp war a ubbi ndaw ñi pour ñu am voie bu gën a légal ngir wàññi teeg ñi wàññi. loolu warteef la ci bépp entreprise rawatina kuy yëngatu ci voyage loolu nag yaakaar naa tax na Layla Travel gën a ubbil boppam buntu ndaw ñi parce que xëy na gaal mën na bañ a nekk solution ba mu jeex waaye nag avion wala yoon wu leer boo ko bëggee yaakaar naa Layla Travel doy na ci boo ko demee seeti dana la defal xéewal ba doo jël gaal goo xamante ni si amaana mu ngi ci ñàkk sa bakkan wala leneen xëy na loolu mooy li ma ëmb ci biir jàppale ndaw ñi parce que ay ndaw rek ay jël gaal gi ay ndaw rek ay voyager te mën nga voyager voyager bu légal te doo jël gaal te doo def leneen te yaakaar naa bu fekkee bëgg nañ ko rek bu ñu ñëw ci Layla Travel incha allah dinañ ko am jërëjëf merci